ànd ak sama rakk Sankara mbay Sankara moo tax ma xam Mamadou yàlla def bi ñu xamanteeg léegi matul sax ñaari weer ndax Sankara moo ma moo ñëw fekk ma sama liggéeykaay na ma grand bi daf la bëgg a gis parce que nee na bi nga jógee Amérique ba léegi dafa am pas-pasu gis la mais mënul fexe ba gis la bi ma nekkoon dama laa Assane sama mag la rek dafa profité ne il faut mu ñëw jël si ma pour yóbbu ma ci moom bu ñu demee ñu waxtaan waxtaan bu am solo bu jëm ci wàllu réew mi xam yàlla def xam nga cofeel dugg sama digganteeg moom defe naa guddeem gi mujj ci wér-gi-yaramam man ak moom ak euh, Omaro ak Sankara Mbaye ak beneen influenceur bu ñuy wax Souleymane ñoo nekkandoo këram ba presque ay deux heures du matin di waxtaan ci naka la ñuy def pour élection yeeg affaire yooyu donc moo tax démb bi ñu ma woowee ne ma dafa génn àdduna wallaahi defuma lu dul tiit parce que li moo tax képp ku yeewoo Sénégal rek war ngaa jiital Sénégal balaa ngay jiital sa bopp te man loolu moo ma gën a tiital fi mu toll nii parce que. parce que rek parce que ku ko ku ko ku ko waxoon ne ko. élection yi du la fekk suñu guddi gi. Mhm. wallaahi du ko gëm. Mhm. xam nga moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. di ko ñaanal njabootam. pare di ñaan Sénégal ñu yéenante jàmm daal. Mhm. parce que nit ku baax la woon. koo xamante ni boo ko jegewul doo ko xam te. yéene bi mu amoon ci Sénégal ñu waxtaane ko bërki démb ci guddi wallaahi tax na man maanaam buggatuma dara lu ñaaw sama diggante ak doomu aadama parce que nit nit rekk nit kese lay doon comprendre nga li ma la wax ba pare waxtaanewuñu lenn loo xamante ni tey mën nañoo toog ne lu ko doon jariñ la wala luy jariñ waa këram mm-hmm. mais luy jariñ Sénégal jeunesse bi loolu rek la ñu waxtaanee guddi gi yëpp man moom Omaro ak Sankara Mbaye ak Souleymane moo tax na ko yàlla yërëm. mu mel ne ku dee bàyyi mbébét kon bàyyi na yoo xam ne am nga ci ay preuve yu bàyyi na bàyyi na bàyyi loolu moo ma tiital daal. Mm-hmm. parce que nit ku nekk booy dund ba am nga ay projet mm-hmm. nit ku nekk am na loo xamante ni moom ngay yéene sa askan moom ngay yéene sa njaboot. Mm-hmm. xam nga te mbëbët yooyu man xawma ci lenn leneen lu ma ci wax lu dul. li mu mujjee mbëbët pour Sénégal la wallaahi damay fen loolu moo ma tiital. ñu jëm ci élection yan message ngay wax ñu xam ni yàgg yàgg fii la ñuy mujj. nañu nañu jubluwaat ci Sénégal jubluwaat ci suba rek wax naa ko ci sama live maa ngi wax ne Sénégal Senghor jaar na fi ba dem te kenn tojul kër kenn kenn taalul kër kenn. Mm-hmm. Abdou Diouf jaar na fi ba dem kenn tojul kër kenn kenn taalul kër kenn ab Ablaye Wade noonu Macky Sall noonu kon bëgg a yor am réew bu tax bu mu tax kenn kenn ci biir Sénégal mu jaral la say nit di dogale ay nit di leen dóor wala ñu leen di saaga wala leneen xam nga jàmm ba pare parce que bu ñu la joxee réew mi te amoog waa réew mi jàmm munoo fee taxawal jàmm xam nga loolu laay ñaan képp koo xamante ni xam nga yaa ngi sàkku réew mi pour Sénégal am jàmm loolu rek laa doon. looy ñaanal Mamadou Yatassay ñu dem. àjjana. àjjana wallaahi xaalis bi ma mujjee forcé jox ma ko barki sëñ Fallou mi ngi nii ba léegi laalu ma ko xaalis moom moo ma forcé ma jënde ko essence bi ñuy jógee bi ñuy jógee billaahi wallaahi mi ngi nii sama sama carnet bon essence laa ko def comprendre nga li ma wax ba léegi nii jotuma sax utiliser xaalis bi Sankara woo ma ne ma yëg nga nouvelle bi loolu moo ma tiital te wóoruma ndax dinaa egg sama kër wala ñun ñu fi toog moo tax lu rafet rek pour Sénégal parce que defe naa li ñuy xeex yëpp pour jéem a jëmmal Sénégal la yàlla na ko yàlla xare àjjana taxawu njabootam taxawu Sénégal te yóbbu ko ci àjjana ya gën a kawe. xam nga ci barki Seydina Mohamed. jërë ngeen jëfa ah. jërëjëf mbokk yi kon mooy kàddu ami internet univers info tv ginnaaw bi ñu leen nuyoo amaan mbégte ñëw topp li nga xamante moom moo fi actualité mais tey fi ñuy dooree fi nga xamante moom mooy suñu kàddu di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni ki démb yàlla daa defaat dogal gi nga xamante ni mi ngi ko doon wàccee ci kenn ci ñenn ñi tey mu dogal ko ci famille ki nga xamante ni moom mooy président Mamadou Yatassaye démb mu tombé woon ak jeudi 21 mars 2024 tey ci aljuma jébbal boromam fii nga xamante ni moom mooy ci yëmbal ginnaaw bi ñu jullee tisbaaru aljuma ji gis ngeen ni yëmbal ñëpp génne nañu gis ngeen ni sénégalais yi ñëpp génne nañu gis ngeen ni jigéen ñaale yi ñëpp génne nañu gis ngeen ni ñëpp ñi nga xamante ni mi ngi doon doon mi ngi doon jëflanteeg ñoom ci baax tey wuy si nañu ko defal ko li nga xamante ne moom mooy dernier hommage bi d'après bi ñu ko jëlijee fële nga xamante ni moom mooy ca Ndakaaru bi nekk euh, côté côté côté clinique di Cap euh, euh, gis ngeen ko jigéen ñaale yi ñëpp gunge ko fii nga xamante ni moom mooy ci këru dëggam jigéen ñaale yi ñëpp gunge ko fii nga xamante ni moom mooy ci këram gu mujj li ñuy wax titre foncier lii mooy titre foncier li ñuy wax ni dernière dernière dernière néeg bi ngay tëdd mooy bàmmeel tey bu ñu jaalee ki nga xamante ni moom mooy doomam di Cheikh Cheikh Yatassay Akaadim mën nañ ni tudd nañu famille bi yëpp mën nañu tudd nañu képp koo xamante ni jege ñaale nga woon ñu koy ñaanal suñu boroom jéggal ko xare ko aljana ah, yàlla yeesal yërmandeem ci kawam ba lépp loo xamante nii mi ngi ko doon jëf ci lu baax waaw mu fekk ko ki nga xamante ni tey fii la nekk bu ngeen xoolee kenn desul Almeri fees na dell tellement que jëf ji nga xamante ni mi ngi ko doon jëf à travers ak nit ñi à travers ñi nga xamante ni moom mooy jaamu yàlla tey moom moo waral ñoom ñëpp tamit bàyyi seen activité ñëpp bàyyi seen yitte bàyyi lépp ak di naaj bi di tàng ak li koor gi di métti ñu ne dañuy ñëw ñaanal ko ñu ne dañuy ñëw gunge ko ñu ne dañuy ñëw waaw defal ko li nga xamante moom mooy dernier hommage am kon encore une fois lépp loo xamante ni nit ñaanal na ko fii rek incha allah yàlla na ko daal te lépp gën ci moom incha allah ñuy waxaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy famille bi yàlla na leen yàlla may xolu muñ yàlla na leen yàlla taxaw fépp boo xamante ni féete woon na leen fa rek suñu borom mën na ko am na ko te bu leen ko defalee aussi du ko jariñ dara du ko yokk te du ko wàññi yàlla na leen ko defal gis ngeen ko comme nii rek lañ leen koy defalee après incha allah dinañu dellu ca kër ga bu ñu mënee am réaction nga xamante ni ñoom ñooy doom yi soxna yi wala boog képp koo xamante ni jege ñaale woon nga ci partem incha allah ñu toppal leen ko ba ngeen mën a am éclaircissement yi nga xamante ni noonu la mujj demee dernière hommage yi nga xamante ni ñoom am nañ ko à travers euh, Mamadou Yatassaye président gis ngeen ko tey ñëpp génn nañu ñëw fii nga xamante ne moom mooy ci almeeri ngir nar ko gunge. ci salaamaaleykum mbokk ami internet univers info tv fi ñuy dooraatee suñu kàddu mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme ni ki démb bi ñu yégee xibaar bi nga xamante ni daanu na ci kaw mbokk yatasaa yi tey mu tombek àjjuma après tis après bi fii ci yëmbal di ñëw Thank you. Yep. لا إله إلا الله